salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu man la seen doom seen Mansour Sek, le président de l'amicale des étudiants ressortissants à Tivaouane orientés à l'université Assane Seck de Ziguinchor de la même manière di le coordinateur des étudiants ressortissants de Tivaouane orientés dans les universités du Sénégal waaw maa ngi nuyu nag euh, kilifa gi di nuyu le khalife général de la Tijaniya, Serigne Babacar Sy Mansour son excellence le président de la République Macky Sall les autorités administratives et politiques de la ville de Tivaouane le maire le préfet euh, le commissaire de la police de Tivaouane le commandant de la gendarmerie ak les autorités bu nekk Tivaouane rawatina biir Sénégal ñu ngi lay de di la des étudiants ressortissants de Tivaouane à Ziguinchor dafa fait amical boo xamante dafa ëmb ay doomu Tiwaawan ñu am seen bac ñu indi leen fii ci Ziguinchor rawatina ci université Assane sec mu nekk amical boo xamante ni lakk ay doomu Tiwaawan ñoo fi nekk ñu tabuma ma ma nekk seen président nekk seen kanam euh, ak tous les membres du bureau ñu ànd di liggéey ci li nga xamante ni moo soxal la vie estudiantine mu ëmb lak ay jigéen naka noonu ci la ëmbee ay góor ñun ñëpp ñu boole suñu doole boole suñu am-am boole suñu mën-mën daan ni dañuy jéem former une amicale bi ma ñëwee nag la tête de l'amicale ba gis ay problème yu bëree bëri bëri ñu koy jànkonteel ndax ici à l'université damay gis ay appartement yu ci mel ni ay appartement de Thiès ay appartement de Dakar appartement de Guédiawaye appartement de Rufisque mais doo dox ba ñu la appartement Tivaouane mi ngi nii ci doomu Tivaouane ñu boole suñu am am ak suñu mën-mën fexe ba wut appartement bo xamanteni ni dina mën contenir étudiants yi dëkk Tivaouane yépp te ñu nekk fii ci université bi waaye nag loolu doyul ndax amical boo ko yoree mu ëmb ay góor ëmb ay jigéen moo tax ki nga xamante ni mooy le président de la commission sociale di euh, Ousmane Diouf ma ne ko il faut que nga gën a miser wu ci xale yu jigéen ñi ndax bu la nekk lycée di jàng di wàcc di gis say waajur ñu lay taxawu ci bor bu nekk nga am sa bac ñu ni la à l'université papa donc say mbokk wala say mak say xarit muy ñun ñi nga fi gis ñu war taxawu war wala tamit wañi li nga les problèmes sociaux et pédagogiques motax ñu jël avec les moyens di def li nga yombal dundu étudiants yoy non ci kaw may lancer appel bép autorité bo may que ça soit nga autorité locale wala nga autorité nationale

gën Wajil li nga xamante ni mooy paiement mensualité yi appartement bi bi ñu ko jëlee ak caution bi nga xamante ni moo ci war a ànd ak ak fin de mois yi ak li nga xamante ni moo ci war a am lépp amical bi jël ko en charge ngir wàññil étudiant yi noonu seen dund moo tax il faut que autorités xaw ñoo gestu tuuti xaw ñoo mën a gën a dugal seen loxo ci li nga xamante ni mooy amical yi moo tax maa ngi ciy woo le maire di ci woo le préfet di ci woo le commissaire di ci woo le commandant di ci woo le président la la présidente du conseil départemental di ci woo autorité yëpp honorable député yi ak képp koo xamante ni rek yaa ngi am ndombal tànk ci biir Tiwaawan wala boog ci gouvernement bi ñu ngi lay woo ngir nga mën a ñëw mën a duggal solo loxo ci li nga xamante ni mooy liggéey boobu ndax liggéey bu am solo la wax naa ko waxati naa ko ku nekk fa la yàlla di yóbbu ëllëg xamoo ko donc yoon la boo amee say doom yoo xamante ni ñu ngi ci ci milieu universitaire yoon la nga jàppale leen yoon tamit nga taxaw leen ba ëllëg bu fa sa doom wala sa sët nekkee mën a nekk ci nekkin ñu baax loolu daal moo nekkoon kàddu yi ma ko doon lancé ci autorité yëpp ngir ñu mën a gën a ñëw duggal seen loxo ci li nga xamante ni mooy amicale bi duggal ci loxo seen doom seen i jarbaat seen i rakk yi nga xamante ñi ngi fii ci université de Ziguinchor ngir li nga xamante ni mooy les problèmes sociaux et pédagogiques gën a mën a wàññeeku baax baax a baax jërë ngeen jëf